ak ay tereem jëm ci ay jaamu te ñun ñëpp ñu xam ne al amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar maanaam di digle lu baax lu leer lu ñu xam al ma'ruf mooy lu sharia xam mooy lu xel mu rafet xam te lii xel mu rafet di xam du ko nangu mooy dëppoo bi sharia di digle am na fi alal munkar mooy tere lépp loo xam safaan la lu bon la xel nangu ko ko mbokk yi loolu farata la ci képp ku yàlla jox baax ci képp ku yàlla dénk njaboot ci képp ku yàlla yi def loo am baat ci kaw suufam fii ñu bàyyi xel ne bu ñu waxee digle lu baax tere lu bon lu baax mooy yonentam bi jot li ko ay xeetam borom xam-xam yi nit ñu baax ñëpp fàttali ko digle ko ni ko yàlla ak yonent bi digle tere lu bon lu bon mooy li bi tere yonent bi jot li ko aw xeetam waaye jàngalekat yi nit ñu baax ñi di ko fàttali jamono ñu nekk ñu bokk nag ñun ñëpp ne ndigalu yàlla subhanahu wa taala amul kenn ku ba seen ko génn ndigalu yàlla ni mu dalee ki nga yaakaar ne mooy gën a xeeb ci kaw suuf noonu la dalee ki nga yaakaar ne moo gën a rëy gën a màgg ci kaw suuf kon bu borom bi ne def leen bu borom bi ne bàyyi leen amul jiitu réew amul kilifa diine wala kilifa aada ku màgg màgg ba sañ a xëtt ndigal yàlla wala nga sañ a xëtt ndigal yi yàlla subhanahu wa taala alquran jàngal nañu wa maa kaana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an takuna lahum alxiyaratu min amrihim yellu jaaduwul dagalul xaraam na ci jullit bu góor wala jullit bu jigéen bu mën a doon yàlla ak yonentam àtte ba noppi nga am leneen looy tànn yow di am leneen looy bëgg looy bañ lu wuuteeg yi borom bi subhanahu wa taala bëgg wala lu wuuteeg yi nga xam ne tere na ko ay jaam kon faw ñu xam ne képp ku lay jox ndigal ku mën a doon ku ay atte ñun lay atte war naa bàyyi xel ndigal yii dëppoo ci borom bi waaye ay atteem la muy bëgg la muy bañ dëppoo li nga xam ne mooy ndigali borom bi wa taala mooy tere borom bi subhanahu wa taala ndax mooy benn delluwaay bi nga xam ne ci la jullit war bi dal yàlla waxoon ci alquran ñi nga xam ne dañuy wuuteeg ndigal yonent bi falyaxdar alladina yuxaalifuuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adaabun aliim ñii wuuteeg ndigal nañu wattu seen bopp nañu wattu ndi ko fitna dal ci seen kaw jéngalee leen jéngaloo leen jóge leen ci jaxee wala mbugal mu mett dal ci seen kaw fii jaaduna wala alaxira wala la gën a bon mooy mu dal leen àdduna ak alaxira yëpp wal iyaadu billah kon mbokk yi gis nga ndigal ak tere yi nga ne moom la sëriñ bi di tere ci dëkk bi sëriñ Abdul Ahad radiyallahu anhu yaamal ko ci këyit jox ko jiit mi fi nekkoon 1980 booba ñu bari ganee bu ñoon àdduna ñu bari ay pourtànk lañu woon ak tey moo leen digal ñooñu mooy lan mooy yàlla digal bu bi tere yi mooy lan mooy yàlla tere ak bu nekk ndigal ñoom la Cheikh Mouhamadou Mountakha di tere maanaam ndigal yooyu ngay digle ba tey tere moom lay tere ba tey kon bul nangu seytaane bi foofu sa xel bul nangu la jaxajaxe di la wax ne ndigali sëriñ wala tere sëriñ bii yoon tere na ko yoon terewu moom mi lay wax loolu ak yow mi mu koy wax ak moom da koy wax ndigal da koy tere na ndigal yi dal ci seen kaw ñu war koo la tere yi dal ci seen tere loolu war naa leer ci boppi bu ñu ñëpp sëriñ bi li mu digle ci fàttali lu ñu gën a def ci weeru korite fanweeri fan ci weeru korite mille quatre cent quarante tombé euh, juin deux mille dix-neuf lan mu ubbee ndigalee mooy ñu xam islam sàmmwante ponk lislaam yi di ko taxawee rawatina nag di ëpp solo dana am ñaari baat te di muy julli waxtu yi juróom di ko def ci jàkk yeeg jumaa yi di ko def ci waxtu yi di sàmmwante ay tegginam ak li mu laaj ni ko Sëriñ Tuuba waxee woon te dénkaane ba man shagalathu salaatu an al ashyaa intafa'a biha wa bil ashyaa koo xam ne julli moo la gàllankoor ba yàqal la dara da nga jariñu ci julli jariñu ca loolu yàqal la waaye ku yittewoo lenn na ban ndox sa diggal julli doo jariñu ca loola doo jariñu kon jullit ak ku mën a doon nay bàyyi xel ndigal yi nga xam ne sëriñ bi digle na ko tàmbale bi sàmm kooku waaye fawaaxis yi muy ñaawte ci lislaam tere bokk ci lépp lu ci ak dëgg jëm ci am fecc jëm ci ay folklore ak ñu ñu am yii sëriñ bi tere jëm ci luy soppi yaram doomu aadama di topp ak toolam di soppi dalu yaramam bi tere jëm ci jëfandikoo yi soppi ak ak yuy màndal ak lu mu mën a mes ak tur ñu ko mën a tuddee xeetu cigarette yi ñuy jëfandikoo bi ak ku fi jëfandikoo waaye tere mu jëmee bi ci képp koo xam mu sañ laa digal sañ tere jëmee ci képp koo xam ne ak jullit nangu laa dëgg bu bàyyi koo moom yii dëgg-dëgg ku ñëw wax ne yoon terewu ko dafa mel ni ku fekk borom kër ci diggam di ko gënaaw ci njabootam naan leen seen wajur yi wala seen kilifa gi daf leen di footoo li fi seytaan rek la moo tax taalibe yi faw gën a ubbi seen faaw ñuy dellu ci borom wa taala fexe ba bu coow jógee fexe bu wax jógee nañu féeteeg yàlla nañu féeteeg nit yàlla yi waaye coow lu dëgg nga léegi yow da ngay faral seytaane da ngay ànd ak ndaw seytaane dëgg-dëgg loolu musiba rek da lay jural àdduna musiba rek da lay jaral àllaaxira jaaduwul ci benn jullit wax na ci koo xam ne ab taalibe la kon dana doy waar lool nga dégg nit di yeewoo di dëgg di wax ne moom mi ngi far ak kàddu bii wax ne tere yi sëriñ bi tere ah, yoon te loolu te loolu njuumte la ndax li ñuy tuddee ay yoon ay baat la ñu ëllëg ko buñ koy firi ñu leen neex lañ koy firi yaakaar naa ne lu waaye jàpp jàpp xam-xam xam nga ne dëkk bii dëkk sëriñ Tuubaa ñu laa ko yow ba mu la këyit yi yoonal may ko ko moom ko ci anam bu leer dugg ci dëkk dafa nangu nit dugg sa biir kër yow samp fa ay terrain di fa bal wala benn fa am dëndën wala ubbi fa ba doon da ngay musique day tudd ndax loolu may loolu xëy na bu yoon bañul kuy def mbéy yi danañ laaj fan la ko bañul waaye jàpp naa ne benn yoon nanguwul di fekk nit ci biir kër ci biir am na loo xam di def loo xam ne day yàqal loo xam ne baaxul la wax na loo xam ne diineem ko koote kon ñu bokk ragal yàlla te xam ne wax bi tudd gàtt coono yi mun koy bëri ñëpp. fa ñu jëm mooy kii borom subhanahu wa taala bés boobu nga xamante ne dañu moom di bés bu ñu war a bàyyi xel bés bu ñu war a ragal wattaqu yawman turjaʿuuna fiihi ila Allah wa taabiʿiin wa ala man tabiʿahum bil iimaani wal islaami wal ihsaani ila yawmi ddiin mbokk jullit yi ñu maase ci ragal yàlla maase ci dogu jëfee ay ndigalam maase ci dogu daw ay tereem sunu kem kàttan ñu bàyyi xel waxe yàlla ci alquraan karim wa kadalika jaalna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yashurun yàlla nee na def na ci bépp dëkk dëkk boo xalaat rek xamal ne mu tukki bi gis nga yoon ci mooy ngir di jamono mooy ngir di jamono ay àndandoo ñooy ngëm di àndandoo waaye ñooy yëpp teewul biir ñu nekk Madina Munawara di wooteel lislaam di yar jullit ñi ci lislaam ay naafeq yu bari waaye yu bari ñu woon ci gannaaw fu mu ko ne gis leen te gënuñu ko gënul yàlla ñu ngi ci biir jullit ñi di yàq seen di leen jaax di yàq lépp mu mos la ñu war a dem jaar sax ñu yebal seen i ndaw barab bañ jëm ne rek Mouhamad yi ñëw seen tool ngannaay ñu leen toll ñi mu ànd ak yooyu toll waajal kon ak jaay-jaay amul yàq ndege kenn mu tukki nit mag yow bu saay-saay du la fexal saay-saay du ànd sa dëgg sagat yonent bi alayhi salaatu salaam moom tuddati loolu moo tax ne def nañ ci bépp dëkk ak ay ay ponkal ay nit ñu rëy da leen ay ponkal mën naa am palteef la ndomba ma bu ne fan la mën naa am alal ju bari la mën am xel mu rëy pexe yu ba léegi dugub dugub wala ab dugub la ak lu mu mën a doon yàlla na dëkk bu nekk rek teg nañ ba lu yàq ba seen loxo génn ko seen làmmiñ génn ko loolu yaakaar naa ne lu neex a wax am na ci jamono jii nga xam ne wax ji bari na waaye saay saay yaa ngi ta'rifuhum bi siinahum yaa ngi leen xam seen i mandarga ci saa bu ñu waxee ak saa bu ñu jëfee saytaan yooyu ci dëkk yi doon ay kàddoon yàlla nee na dañ faa nekk li yam goo fi di lala ay pexe rek di yàq rek di saboot rek waaye ñu leen wóor ne pexe yaa ngi yàq bi yëpp ci seen kaw lay këpp musiba bi yëpp ñoom lay dal ñoom ñoo cay ëppale loolu ku xam war ngaa ràññee war ngaa teey ci bu yenn coow yi ak yenn xew-xew yi jóge jamono ji nga xam ne ay kilifaa sonn ngir jubbanti nit ñi ngir fàttali nit ñi dënk ko borom bi bëggee ca fekk war da gis xeetu ku nekk mu mel ni ku dàmmaarloo ak ñoom ci làmmiñam ku dàmmaarloo ak ñoom ci ay waxam ci ay bexeem ngir lan dëkk gi nañu ko bayal réew mi nañu ko bayal lu neex waaye na def te kii wax nii bu amal kan tuuti xam ne bu ak yàqute amee moom kenn du jëppale waxuma diggante moom yàlla sax waaye njaboot bi nga xam ne njabootam la bés nga ñëw bu gis ci ñoom lu ko neexul te moom mooy ki ko jëmmutoon moom mooy ki ko suuxatoon mooy ki ko doon doxe kon nañu wattandiku nit di wax ci lu mu xamul wala di wax ci lu mu wax yàlla dafa tàmbali ba léegi di tàgg ñi a xam ne saa bu doon duggee rawat na lu dellu ci luy maye jàmm wala kuy jeqe ak ragal ci société bi dañuy dellu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy dellu ci ulul amri muy kilifa yi wax ci ak ngay jawar a waxal te doo déglu leen waaye nga taw suñu jamono ji nga ni ñu ni ñu doxee mooy lu xew rek day mel ñëpp ay expert lañ ci ñëpp ay ñëppay nas bi mag yi ñëppay wax ñëppay digle ñëppay tere loolu it daal pétrole ak jaxasoo boo xam ne ak yàqut rek lay góor wal ayaadu billah ñi nga xam nag ñooy yëkkati seen baat naan ñi ngi ñi ngi far ñi ngi dëggal lii di wax te du lii li wax mooy lii sëriñ bi di tere te mooy tere yàlla yonent bi yoon tere wu ko yoon tey moo mën a seen bopp seen méngalee ay tereem ak tere yàlla waaye li la yàlla tere yow ab takk der nga njiitu réew nga dawal njiitu réew nga ndomba tànk genn ci àdduna mayut la nga sañ a xatt njurul yàlla dañ koy jëfee wala nga sañ a def tere yàlla rawat li ngay am gëm-gëmu lii borom bi tere sëriñ bi ko fàttali bàyyi lay yoonu terewu yoonu wala nga seet mooy lan moom la ñu war a jubbanti ba mu dëppoo bu ndigal ak tere borom bi subhanahu wa taala nit ñi nag li war a fi ñooy wax ne la borom mbaam lay faral bëri na kuy coow ak di wax ne ñu ngi jàppale jiw bi koy doole loolu rek la war mën a wax ndax ak caay-caayam ak appali yi nar a dundee jëraamal ay takk der rek la war a jeexal ak dundam na boppam bu ne dëgg-dëgg seen xol moo yàqu ba fu taw jigéen rek benn seytaane far rek foofu la ñuy far wax ne moom la ñuy doole comme sax dëgg-dëgg daanu far waaye loolu xol bu waaye dañuy warmaal suñu kilifa yi lislaam day dina joo ne kenn du ci dem ak xelam boppam kenn du ci dem man saa ma kenn ah tey foofu nga am kilifa bu la nga xamante ne xale li fekk ak jullit nga ñu góorgóorlu ci loolu te wax nga ko leen ñu nga demoon ñi nga xam ne yaatu na ba lu ki mën a daw lu nit ki mën a ber boppam mën a góorgóorlu na ku ñuy wax Abdullahi ibnu Amr ibnu Al-As ci fitna yi jógee ci xilaafa ak seen naaj yi coow yeeg rayante yi bëri mujj dem ba ci àll bu dara nekkul mu dëkk fa dëkk fa waa kër yor fa ay gàttam de sàmm nan mu la dem ci benn dëkk nan mu la jàpp ak kenn wax waa kër ga sax beneen coow ak pëccoo yeeg xeex yi bu ma ci nekk ni daal xeex am naa ko ku gañe ku gañe bu ma ci kenn indil benn xabaar wér ci àll ba njabootam di sàmm ay waaye mën a jëfee la alquran waxoon inna fi xalqi samaawaati wal ardi wa ixtilaafi layli wan nahaari la aayaatin li ulil albaab mën a nekk ci àll boo xam ne daal du ndox di gën dem ak settantal ci mbindeef yàlla yi asamaan yi suuf yi wuurwante guddi yeeg bëccëg yi waaye mën a bokk ñi nga xam ne dañuy bëri lu ñu tudd yàlla ci alquran naka leen alladina yaskuruna allaha qiyaaman wa qu'uudan wa ala junubihim ñi nga xam ne dañuy tudd yàlla fekk ña nga taxaw dañuy tudd yàlla fekk ña nga toog dañuy tudd yàlla fekk ne la tëdd xaal bu nekk rek dañuy tudd yàlla ala kulli xaal wa yatafakkarun dañuy xalaat fii xalqi samawaati wal ard dañuy xalaat di yéenu ci bind yi yàlla bind asamaan seeg ni mu toll suuf seeg ni ñuy toll ak sekkee ni koy doxal loolu di leen yóbbee ñuy xam seen bopp loolu di leen yóbbee ñuy xam seen borom naan subhaana yàlla ñu ngi tudd sa sell ñu ngi lay sori yëpp ñu yemlu ci yow ñi ngi seetlu leen ñu def yii bindoo ko ca ñaan kon ñun ci suñu bopp bindoo ñu ngir ñaan dañoo bind dañoo bind ñoo ko ci fekk dañoo bind jox ñu ay ndigal jox ñu ay tere ñu ay tere ñu war koo daw war koo sori lii mooy ma defaru jullit bu mën a doon rawat na koo xam ne borom ndomba tàng la lu jàpp ne woon la nga gis borom ndomba tàng fonctionnaire mu liggéey ci faj wala muy ab alkaati ne takk der wala muy liggéey ci leneen bokk ci wàññi yàlla ngir boo xam ne sax liggéey mooy nit ñi dañuy feebar xamul fu mu gën a seen daawoo ñoom nga dimbali leen loolu liggéey sa liggéey mooy sàmm kaaraange nit ñi di jubbanti way jubati yi loolu liggéey bu rëy mu ànd ak borom xam dara ci diinam boromam yitteel ko muy seetal léegi day béy gàll ba tëj ko boole ko ci wàllu yàlla waaye tàkk naa ndomba maay buur maay buur lu ma neex def maay taxaw ci lu bëri na bu ñëpp yaakaar waaw ma dama ci benn kers maa ngi doon ku ma bëgg a doon danga ci sa ku ma ñëw ma dem la wala ba dañu la kuy def lu bon bu ma jàppee sax léegi lu bon naa jaar dara naa ko nangu yow man def ci sama poche def ci sama xaalis dem jaayi keneen loolu yëpp am si biir ñi ñu koy gis bu baax a baax a baax moo tax takk nag buy Dakar ko waxtaan bëgg a wax ab kuréel wala am looloo seen nguur teeg seen seen seen yi def ñu daanul yàlla seetlu na ne waroon naa tàmbali ci boppam te xam ne moom xam na ci boppam réew mi xam nañ ci moom ak kuréel bi ñuy askanoo loo xam ne boobu dañuy jëm ni doy na sëkk aw sas doy na laa tool doy na laa xëy doy na laa ngoon kon ñu góorgóorlu ci yàlla subhanahu wa taala ñu fàttali di ñaan suñu borom mu boole ko ci jaamu ñu waaye nit yi jaam yi nga xam ne seen làmmiñ day booy ci lu dul dégg def ci barke allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa arham muhammad wa ali muhammad wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta wa rahimta wa barik ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid salatan tunajjina biha min jami'i al-ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'a al-hajat wa tutahhiruna biha min jami'i as-sayyi'at وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الغايات في الحياة والعلوم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين